أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الميامين نجوم المهتدين ورجوم المعتدين ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي نسيت seetaan fii ci تلفزيون chaîne télévision TV ñu ngi dellu siwaat di leen nuyu ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu tabaarakallahu di leen ziyaara di leen ndokkeel fa seen di ñëwaat ci suñu jotaayu daara bi ñu dippee tafsiru ayatil ahkam tafsiru ayatil ahkam ñu ngi nekkoon ak yéen ci saar woo xam ni saar wu bari ay jàngat la waaye saar wu bari ay atte la atte yoo xam ni Euh, wax naa ni jullit bu nekk war na koo gëstu xam ko waaye war na koo jàngal ay njabootam ndax saar la woo xam ni dinañu jàngal discipline ca mooy wàllu teggin ak orma saar la woo xam ni dinañu jàngal suñu diggante ak suñu kilifa comportement bi ñu war a am suñuy diggante waaye saar la woo xam ni kadalika dinañu jàngal nan lañ war a dunde ci société bi rawatina ci jamono bi ñu nekk nga xam ni jamono bu tere di la ñu nekkoon ak yéen ci juróom-benneelu aaya ci saar wi juróom-benneelu aaya boobu nga xam ne borom bi subhanahu wa taala mi ngi ci jàngal teggiin wala ñu tuddee déontologie ci wàllu journalisme waaw bu ko defee nag ñëpp ñoo xam ne dañuy tas xibaar war nañu jël aayat bi ñu jàngataat ko bu baax borom bi subhanahu wa taala di wax ni baada audu billahi min alsheytan arrajim ya ayuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi na ba naba'in fatabayyanu borom tabaaraka wa taala mi ngi naan ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm yàlla bu fekkee xibaar dafa dikkati jóge kenn ci yéen assi ci yéen na vérifier information boobu bu leen ko jël rek ko maanaam journaliste d'investigation da nga war a am investigation ci wàllu xibaar wax naa ci jotaay bi wax passé nii da ngay gis koo xamante ni journaliste jot benn xibaar rek xëy dugal ko ci wax ko ci rajo yi wala télé yi rawatina internet bi ca mu nekk loo xam ni yàq deru nit ki la mën na dàq deru nit ki àdduna ak àllaaxira ca wallaahi la ñuy wax dara du ci dëgg ñaata lañ koy dégg. bi de presse yi boo koy déglu ah journal fait divers yi boo koy déglu saa yoo xëy dégg ñu yàq deru nit. te pourtant kooku ñu yàq deram boo demee wallahi bari un baraatu zibu min dambim ni yaqub lañ koy tuumaal dara amu ci moo tax yàlla ni fa tabayyanu na ngeen leerlu balaa ngeen dal ci kaw kenn deleerlu leen an tusibu qawman balaa ngeen a dal ci kaw kenn benn nit bi jahaalatin fekk ci erreur ngeen dale ci kawam su boobaa lan moo cey mujj fa tusbihu ala naa di nadimin du ngeen mujjee lu dul rëccu ah baal baal ma rek ngay mujjee wala damaa xamul woon te loolu ëpp naa def mbokk yi ñaata yoon ngay gis koo xam ni mere na nit rek jël image am collé ca lu ñaaw dugal ko ci internet bi nga jot ci yow partage sa moroom jot partagé keneen jot partagé mu wër àdduna yépp ca la ngay wax dara wóoru la ci fata ba yenu yàlla nee na bu xibaar dikkatee ci yéen na ngeen ko vérifier ba mu wóor leen ngeen soog koy wax te itam sax nag xibaar boo xamante ni nii yàq lay def waaye amul lu muy defar luñ ciy tasaare mbokk yi yaakaar naa kii tasaare xibaar la mu ci jublu mooy yeete ak jàngale waaye xibaar boo xam ne boo ko tasaaree lëndëmal ak yàq lay gën a def wax dëgg yàlla xibaar boobu kenn soxlawu ko. moo tax dinaay faral di wax toujours nii nañuy bàyyi xel bu baax ndax léegi ñëpp ay journaliste lañ ñun ñëpp am nañ ay chaîne télévision ñun ñëpp am nañ ay compte ci internet bi waaw ku ne ci ñun mën nga xëy joxe xibaar boo xam ne àdduna yëpp a ci jot ku ne ci ñun mën nga ko kon nag nañu def attention bu baax a baax. ndax lépp loo xam ne tasaara nga ko ci ak mbon fu mu àgg rek sa responsabilité àgg na fa waaye kadalika loo tasaare ci mbaax fu yiwu àgg kadalika borom bi subhanahu wa bindal la ko kon nag ñu bàyyi ko xel bu baax a baax aaya baa ngi noonu yàlla nee na yaa ayyuhal ladina amanu e gëm yàlla in jaakum faasiqun bu ab kàccoor ñëwatee bi na ba in indi leen benn xibaar fa tabayyanu na ngeen vérifier xibaar an tusibu qawman balaa ngeen a dal ci aw nit bi jahalatin ca ngeen di wax xamu leen ci dara fa tusbihu ala ma faaltum naadimin kon de la ngeen di mujjee rek mooy rëccu borom subhaana taala ci aaya juróom-ñaar ak juróom-ñetteel mu wax ni wa alamu na ngeen xam xam gu wér anna fiikum rasulallah ay waaye ngal yàlla bàyyi leen xel ni yonente ci seen biir <laughs> fu ngeen nekk day leen bàyyi xel ni yonente ngi seen biir ba muy dund valable na waaye bi mu faatoo it kadalika valable na na wa alamu anna fiikum rasulullah waye na ngeen bàyyi xel ni yonenti baa ci seen biir lépp loy jëf bayyi xel ni yonenti baa ngi sa lépp loy wax bayyi xel ni yonenti baa ngi sa jotaay bo tok bayyi xel ni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi seen biir ngir nga rusee ko lolu yaakaar na ki bàyyi xel ni yonenti baa ci wetam amna lu mu rus wax waye amna lu mu rus jëf tay itam nak law yuti'ukum fi kasrin min mal amri bu fekkone yonenti bi dalena top ci lu bare bare bare ci lu ngeen di def wallahi la anittukum kon neena na coono len de ndax yàlla subhaanahu wa xamal na yonent bi lu nekk bari na lu bëree bari loo xam ni yéen a ngi koy def di ko nas muy jëf ju ñaaw joo xam ni yàllaa leen suturaal rek waaye bu leen yonent bi toppoon ci loolu lu waaye def ci lu bon ci biir néeg yonent bi weer ko génne ko ci biti mu ne su boobaa coono kël na leen waaye nag yàlla ni mu leen suturaale ak ni leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan moo tax du ngeen suturaal jaamu yàlla yi waa lan moo tax lu ngeen xam ci lu ñaaw ci nit ngeen fasal ko lan moo tax lu ngeen xam ci lu bon ci lu nit ngeen fësal ko pourtant yonente baa ngi ci seen biir su neexoon yàlla subhaanahu wa taala lu ngeen def ci lu bon mu xamal ko yonente bi yonente bi weer leen ba ñëpp jot ci li muy tekk rek mooy mbokk yi bàyyil xel ni looy siiwal ci lu nit ci lu bon wallahi def nga lu ko gën a yées yàlla sàng la mbalaanum sutura waaw moo tax waykat arab bi ni saa yu yëkkatee sa kàddu ngir wax ci nit ayibam nee na gestuwaatal xool sa bopp yëgal ni lépp looy wax ci ayib yàlla def na am nga ayib bu ko gën a pire waaye xañ yàlla lam sàng mbalaanu sutura kon ni la yàlla suturaale mbokk yi suturaale ko jaamu yàlla yi ci yonent bi saa sam ne man satara musliman satarahu llahu fi dunya wal axira yonent bi sa sam ne képp ku suturaal ab jullit yàlla sàng la mbalaanu sutura àddina ak alaxira kon mbokk nañu suturaalante ca bàyyi di weer weerante ci suñu biir loolu day lu ñaaw la kon nag waalamu لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله يالا نينا واي من يالا دي حبب اليكم الايمان من يالا من ما صب تي ين يالا سبحانه وتعالى وزينه ما تار الغم يالا تي سيني خول تي كيب كو خامي تارو غم نيك تي سا خول امنا جيف جو نياو جو خامي دوكو من دوكو ديف wa karaha ilaykumul kufra yàlla nee na maa bañ sibloo leen ak kéeféer wal fusuqa sib naa ci yéen ak kàccoor wal isyaana sib naa ci yéen ak mooy yàlla waaw bëgguma ko ci yéen julli ñi de ca ñi nga xamante ni nii yàlla defal na leen tawfiq seen xol yi kàccoor nekku ca seen xol yi kéeféer nekku ca seen xol yi mooy yàlla nekku ca yàlla nee na ulaayka humur ñoo ñu ñooy ñi gëm ñooy ñi jub ñoo ñu ñoo tegu ci siraatal mustaqim waaye bu la ko yàlla wërsëgalee woon mbokk yi sante ko yàlla te boo gisee ku wàcc yoon nga ñaanal ko gis nga loolu mooy melokaanu jullit dëgg-dëgg jullit dëgg-dëgg mooy koo xam ne jomb naa def jëf ju ñaaw jomb naa wax jëf wax ju ñaaw waaye bu gisee nit ku am melokaan boobu du def lu dul sant yàlla waaye ñaanal kooku yàlla ngir yàlla mën koo génne ci situation boobu waaye du ko xas mukk même boo gisee kuy naan sàngara ñaanal ko même boo gisee kuy tux yàmba wala muy def ndak su du noonu ñaanal ko waaye bul ko xas mukk ndax la mu nekk nattu la ci moom te itam borom bi subhaanahu wa mën na laa nattu ëllëg xamoo fooy mujje moo tax boo gisee ku nekk si daka noonu rek jàppeel ni njabootu yàlla la waaye ñaanal ko yàlla génne ko ci situation boobu mu nekk waaye am na ñoo xam ne contraire ba la ñu nekk yàkkamti na gis ndaka sudul noonu nit rek ba ñu xas ko wala ñu yàq dara ah loolu kon mooy aaye bi nga xam ni borom subhaanahu wa taala euh, wax na ko ci jullit taxawaay bi mu war a am ci mbokk julitam fadlan min allahi wa niama wallahu alimun hakim yàlla nee na kon loolu de xéewal la goo xam ni maa koy xéewale sama jaam maanaam ku baax rek yàlla la neex waaw war nga koo sant yàlla ku nekk ca safaan kadalika war nga koo ñaanal yàlla waaye waroo koo waroo koo ñaan yàlla xam nga ñaan yàlla ak ñaanal yàlla moom bokkul ñaanal yàlla mooy nga ñaanal ko yàlla sowee ko mu génn ci la mu nekk waaye ñaan ko yàlla mooy ñaan yàlla yàlla alak ko déedéet bul ñaan mukk yàlla alak ko waaye ñaanal ko yàlla yàlla génne ko ci situation ba mu nekk kon tabaarakallaahu xam naa foofu la ñu teg suñu baaraam euh, di leen dox dig daje suñu jotaay daara bi di ñëw di ñaan bu subhaanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp boo lañ min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa mimman izaa du'u ila allahi yulabbuna assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu بيت الولايات فيه Sakramodupo